dal leen ak jàmm ma dikk ak yéen ci la gën a fës ci ëttu yéenekaay yi tey yëpp a xëy yëy yàbbi ci jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi bu yenn ci jëwriñ nii amaloon niki démb yéenekaay la Soleil ñëwaat na ci di ñu xamal ni lu toll ak fukki ministre ak secrétaire d'État ñoo jàkkaarloo taskatu xibaar yi te ñoom ñooñu daal nañu tontu bépp laaj bi nga xamante ni ñoom journaliste yi daal dinañu leen ko laaj yéenekaay bi ba léegi di ñu xamal ni bokkoon na li ci gën a fës yooyu la laaj lii di émigration clandestine maanaam mbëkk mi gestion covid 19 anam bi nga xamante ni nguur gi yore na ko lii di jàngoroy coronavirus ak jàngoro bi yees bi nga xamante ni mooy dal yi di nappkat yi campagne njënd ak njaay gerte bu ren bi jafe-jafe ndox bi nga xamante ni Dakar ak gox anam ñu ngi koy dund accord de Pesci ak lakk yu ñuy nemmeeku ci yenn marché yi yenn kaay libération moom itamit ñëwaat na ci boobu leen ndaje di xam ne ni bii mooy gulet ñuy amal lu ni mel te lu am solo ndax dina tax askan wi di xam lii di doxalinu nguur bi ñaari ay bés yu nekk Walf Quotidien moom dafa ñëwaat ci jafe-jafe yi nga xamante ni yenn ci ay jawriñ am nañ ko ci boobule jàkkaarloo ak taskatu xibaar yu mel ni ay faute de français nga xamante ni yenn ci ay jawriñ dal dinañ ko def ak ñi fa nekkon di jema a di wax li nga xamanteni amul nekkul te kenn mënu ka teg geut las quotidien ne ko bul ray rayal wax mi luñu fa gis dem ci ndaje bobu moy ay ministre ak secrétaire d'état ñu doon rafetal di jema jek jekki wala sax di jema jagal lu jagul tam ba ñenn ci ñom di jema wax li nga xamanteni dara nekkul ci te dara woru len ci ñenn ñi sax dañoo dam ba nangu seen télé ci yenn digge yi nga xamanteni doxon na ak seen diggante ak askanu Sénégal ci gatal dal yene kay bi japp na fofu dal gisunu fa dara dudul ab sow to sow maanaam looloo fa amoon du leneen yéene kaay Sud Quotidien moom ci kàddu Serigne Mbaye Thiam la ñëwaat mi xam le ni jafe-jafe yu ñuy dund ci wàllum ndox tey nguuru Abdoulaye Wade moo ñu ko yóbbee l'enquête yéene kaay moom ci mbëkk bi la ñëwaat di xam le ni yenn ci ministre dañoo jël lépp daal daal di ko tekk ci ndoddu ndaw ñi ndaxte jàpp nañu nguuru Sénégal daf na kéntu laay kàttanam ngir jox ñii di ndaw ñi xëy ñu wax ci leneen ak yéene kaay l'Observateur mi ñëw wax ci leneen maanaam noppi wala ñu ne pat pataaral bi nga xamante ni kii di Moustapha Cissé nekkee na ko bind ci xëtam bu ñëk le silence inquiétant de Mustafa Cissé ngir wax ni nopi bi nga xamanteni Mustafa nekké nako dafa jaaxal ñu bari waye ba légui rek yene ka bi di xam le ni nopi bobu mu nopi nak dara waralu ko ndigal bi nga xamanteni euh, jofa jugee euh, Serigne Mustafa Ñaawel mi nga xamanteni moy mooy mom Mustafa Moustapha ak ki di xalif général des mourides di Serigne Mountakha Bachir Mbake mi nga xamanteni ñoko jox ab ndigal ne na bàyyi dal bu mi dal ci nguur gi ak ñenn si ay jegeñaalam ak ay natangom li mo fi gënal rus ci ëttu yéenekaay